information dernière minute bëgg naa ñëpp partagé ko ci information yi nga xam ne ASPA joxe na ko tey jii tombeek juróom-ñaari fan Ah, ci ñeenteelu weer maanaam weeru avril atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñeent ah, bi 11h tegale lu toll ci ñeent fukki minute ak ñaar lañu jot ci information bi alaaji Malick ci kàddu gi ñu bëgg ci indi ay leeral ak ay texantal yoo xam ni dana leen doy yu am solo la ndax information yi ñuy gëstu yëpp di ko joxe bis bu ne xam ngeen ne mooy dëgg te it daanaka danañ ko bàyyi xel bu baax a baax ndax loolee maanaam sunu digganteeg yéen na information yi wér te wóor nag ci incha allahu bu àndeek dogalu borom bi maanaam li leen di suba. nga xam ne am na ñoo nga xam ni mën nañ nekk seen séentu bu njëkk waaye loole um, bu nu sukkandikoo ci nga xam ni ñoo nekk aspa maanaam weer wi du mën a uh, feeñ uh, suba jàmm daanaka àllarba mooy bis bi nga xam ni moom la ñëpp war mën a korite wala boog ñoom ñi nga xam ni ci seen gëstu yu am solo yi nga xam ne ñu ngi koy def gëstu yooyu nag gën nañ koo yaatal nga xam ne daanaka yokk nañ matériel ya bàyyi ko xel bu a baax waaye xam nañ ni maanaam suba jàmm ci altine ji moom weer wi du neex a feeñ tey weer woowee daanaka uh, mi ngi war maanaam euh, jant bi mi ngi war a mën a euh, teel a so nga xam ne yaakaar naa ne bu fekkente ni 19 euh, heures jot na ba tegal toll ci ñaar fukki minutes ak ñeent ak lu topp day fekk nag foofee jant bi moom waxi so dañ koy wax waaye nag cinq pour cent lay am daanaka ci leeraay boo xam ne dana ko war a mën a leer maanaam li bëgga wax mooy leeraay bi tax ñu war a mën gis weer yu jàkk fii Sénégal loolee du yomb talaata nag bu àndeek dogal borom bi tombeek juróom-ñeenti fan ci weeru avril atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñeent foofee nag dina am benn éclairage boo xam ni ñiy séentu weer wi di ko gëstu danañ ko mën a gis tey weer wi dana jaar jaar boo xam ni jaar bu gaaw la bu am am solo kon buñ sukkandikoo ci ASPA mi nga xam ni daanaka ak collaboration yi nga xam ni am na ko ci gox yi fasantikoo yi mooy li nga xam ne mooy information bu wér bi ñu bàyyiloo leen ko xel bu baax a baax tey xam ni weer woowee gars yi di am yaakaar ni euh, suba jàmm ci juróom-ñetti fan yi wala bokk ci le huit Euh, duñ ko mën a gis ndax euh, jant bi day gaaw dugg ndax mi ngi dugg ci lu toll ci daanaka ni ma leen ko waxee léegi 19 heures yu tegal maanaam as lëf maanaam ni ñu ko mën a waxee euh, vingt 21 minutes day fekk jant bi day teel a so te boobee ca diggante bi nag daanaka duñ ci mën a am li nga xam ne mooy lu leer kon na ñëpp bàyyi xel te sukkandiku ci aspa mi nga xam ne information yi fiable lay joxe weer wi du mën a feeñ suba ak jàmm bu àndeek dogalu borom bi ci seen i gox yu fasantikoo yi jërë ngeen jëf yeneen information ci kanam